am envie reetaan fii leen bëgg rek waaw kaa leen dem xoole élément bi ma tourné ji woon ñu ñëwaat léegi léegi <laughs> ça va baram naa def ça va bien mais ñaata nga doon daw 60 waaw ban 60 yow tu ma prends pour qui yow baram man 60 nga doon daw te xool bu ma fantoo nga ba 60 laa doon daw pour le fo bi daw plus de cent soixante nga naa ba soixante nga doon daw. mais fii man mun na fi daw cent quatre. yaa le fo bi. mais ban fa laa fi burle. ah kon léegi man je man ah moi en tant qu'agent man nga naan da ngay mentir ah. man nga wax waxoo dëgg. damay dawal dawal loo damaa dawal ba dawal fu dara newul loo tax daw xam naa ko loo accéléré xam naa ko loo corné xam naa ko loo braqué xam naa ko. loo code faar ak loo faar loo signal xam naa ko nga may jéem a jaay ba naan maa si saat faar ak daw tu te prends pour qui. mais Birgadji. qu'est-ce que tu fais dedans yow looy def fii looy def ci bi. déedéet eh, tabax kii moo réerul sama big xam nga big bu la bëgg maa aroon démb ma toon bind léegi damay bind ci big bi di bind ci big bi ci big ba mu yàgg big bi daal di jeex fekk ma daal di ko xaar comme lettre bu mag laa bind te lettre jeexagul léegi xaaral ma a beneen big léegi ma def ci beneen bureau bi nga léegi ma daal koy jël léegi ma jëlee big boobu di ci bind di ci bind ba mu yàgg daal ko teg foofu après gisatuma big bi nag ak fooy lettre boo doon bind léegi pour man ma def ni kii moo ko ramas dugal ko ci biir poubelle bi léegi après ci laa ko topp di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba gis poubelle bi léegi après may jeex di jeex di jeex di jeex ba mu yàgg te poubelle bi daa xóot jotuma ci biir mën naa dugg ci biir poubelle pour seet ko boo ko teelee bu ma gisee après ma génn léegi après ci laa dugg ci biir par kii nelaw ci poubelle bi vite ay ci mu ngi noonu am na solo tey Diop euh, fi ñu demoon am na solo waaw ci biir kër gi lañ demoon Louga la ñu demoon ngumbëngewul la ñu demoon dañoo seeti woon na euh, per bu xar de son vrai nom Mortala donc muy sunu grand boo xamante ni il est dans le milieu depuis très longtemps di ci def lu extraordinaire am personnage u policier brigadier di def lép ñu gis ko aussi ci yeneen facette ci Baye Ginaar mu am personnage wu borom ginaar gi ak détails yu bëri donc il est dans le yoon wi nga xamante moom la fi mag ñi bàyyi woon fekk nga ko moom est-ce sur scène sur scène yàgg naa ko seetaan yàgg nañu ànd ay festival aussi muy bu Kaolack muy bu Saint-Louis ak yeneen ak yeneen euh, muy muy exprimer wu donc il est fort sur la scène il est fort sur sur sur les écrans waaw kii baax na jékki-jékki rek fàtt en mu xam. loolu laa bëgg a xam naturellement moom noonu la mel wala c'est juste son personnage. c'est naturellement comme li di wax mais euh, boo xoolee personnage bi ni mu ko conceptionné ni mu ko créé. après kooku waxkat bu bari wax la. ba pare bu wax du nooyi day jël suuf bu bari tar. et c'est une chose très compliquée. day def ay exercice respiration yu bari yu bari yu bari. pour mën a génn ci loolu. ak di xëcc mooy bu ne may ma tuuti rek. waaw looloo neexal personnage bi mooy astuce bi. en tout cas c'est un grand que je respecte beaucoup. Euh, grand tey am na lu spécial. am na lu spécial. lu lu bëri xamul ci moom mi ngi toj scène bi mi ngi toj écran bi mais mi ngi toj animation bi aussi mm-hmm. gis ngeen mi ngi def seetu bi mais def na six ans yoo xamante ni mu ngi rajo RTS bu bu bu Kébémer def trois ans euh, rajo Dunia bu bu bu Ngumba génnaat demaat euh, ñëwaat Dakar fii pour defaat deux ans rajo donc min na animation mhm. donc bu ñëwee tey ci milieu wu animation bay def seetu bi ak yeneen ak yeneen je pense tey euh, euh, facette la boo xamante ni il est fort là loolu mooy artiste en tout cas lu jëm ci aar boo ci demee day mel loolu rek nga mën donc vraiment ay grand lañ yu nga xam ni war nañu yoon bi et puis ñu ngi koy naaj man dama ko doon seetaan ci plateau yi ak ak yenn film yeeg yooyu mais bi ma demee ba fekk ko sur scène Mm. Euh, vraiment ma présenté man présenté ko moom mu ñëw yéeg sur scène c' est une bête quand même. Euh, bu am doole lay def. Mm-hmm. te nag li ma gën a neex ci moom mooy day raffermir les liens. fekk naa ko moom ak layti bi ma jëloon semaine passée ak ñeneen ak ñeneen ñu boole artistes yëpp di dajale seen doole pour jàppale yeneen magi artistes yi nga xamante ne actuellement ils sont en retraite donc loolu c' est une chose à saluer. en tout cas am solo am na production bu fort boo xam ne groupe Futur Média ñu yi nekk ci kër gi yëpp yëpp yëpp waaw production bu mag la. am doole loolu surprise bi day commencé di